أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci kitaabu tawxid xam ngeen ne ñu ngi woon ci buntu bi nga xam ne mooy li tax doomu aadama yi weddi yàlla bàyyi seen diine ñaar yooyu weddi yàlla ak bàyyi seen diine li tax doomu aadama yi def ko mu ne huwal xuluwu fi saalihin mooy ëppal ci mbiru nit ñu baax ñi dars bi tey mooy ñetteelu tomb bi tey li mu ñu jël mooy ay njëriñ al fawaid parce que dars bu doomu aadama def rek war na cee jële dara jàng yi ñuy jàng bind yi ñuy jël ñëw ñu nii rek di ko def pour passe temps ñëw ñu rek di ko def pour bëgg a wax ñëw ñu rek di ko def pour dañoo jàng mbokk jullit yi ñun ñëpp dañoo war a ànd xam ne dañoo ñëw pour jàng waaye pour mën a dund suñu diini pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk bépp dars bu nit jël lan la ko war a dolli mooy mu xam fu muy teg tànkam mu xam nu muy jaamoo yàlla loolu mooy sababu dars yi bokk na ci tey li ñuy jël mooy njëriñu bu ñuy jëriñu ci dars yi passé tomb bu ci njëkk mooy anna man fahima hadha al baab wa ma baadahu tabayyana lahu xurbatul islaam képp koo xam ne dars yi passé leer na ci yow comprendre nga ko bu baax bunt yi passé ku mu leer ci yow da nga ci jëlee ne diina ji diina ji tumaranke la l'islaam diina bu tumaranke la lu tax mooy xoolal rek waxuma sax àddina bi mais xoolal rek jullit yi nekk ci Sénégal da ngay dégg chaque jour ñuy wax lim bi naan quatre-vingt-quinze pour cent musulman waaye genn wàll gi yëpp ay bokkaale katu yàlla lañ wa maa yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun li ëpp ci nit ñi duñu gëm yàlla lu dul danañ teg dara ci wetu yàlla léegi nag loolu dina ci mucc koo xam ne tomb yu njëkk yi leer na ci moom yi ñu paase wa raa min qudratillahi waa jooju dina gis ci kàttanu yàlla ak ay dogalam moom yàlla ni muy wëlbatee xol yi lenn ci ñooñu nga xam ne ay bokkaalekat lañ léeg-léeg nga gis ci koo xam ne yàlla moo wëlbati xolam allahu akbar léeg nga gis benn waaye bu def ci bokkaale ñeen fukki at bis ñëw rek mu dëpp mu xam ne li mu nekkoon musiba la léeg nga gis koo xam ne li ko teree dee tuuti la waaye mu gis ne la mu nekkoon du dëgg réer la rek mu daal di dëpp kon tomb bi bu leeree ci nit ñi danañ gis ne diine lislaam ndeysaan diine boo xamante ne ku ci nekk da ngay tumuranke parce que yàlla kese kese ku ko gëm rek nit ñi daal lay bàyyi ni ñu bàyyee woon Ibrahim ni ñu bàyyee woon Moussa ni ñu bàyyee woon ni ñu bàyyee woon noonu la ne nit ñi di bàyyee moo tax képp ku bëgg a dund diine foog nga nangoo tumuranke foog nga xam ne say mbokk danañ la ba parce que doxalinu yàlla ak doxalinu nit ñi du benn bëgg-bëggu yàlla ak bëgg-bëggu nit ñi du benn moo tax yàlla nu yàlla dimbali tomb yi di leer ci ñun ñaareel mooy ann awalu shirkin xadata fi l ard sababuhu mahabatu salihin bàkkaar bi nga xam ne moo njëkk a xew ci kaw suuf bokkaale gi njëkk a xew ci kaw suuf sii sabab bi xam ngeen mbokk yi lan la mooy bëgg nit ñu baax ñi ah kon xanaa nit ñi de nit nit dina ne waaw bëgg nit ku baax bokkaale la déedéet ay almahabatu lleti fiha xulu bëgg gu nga xam ne dafay jur ëppal day jur bokkaale kenn waxu la bul bëgg kenn waaye dafa am fu mu yem waaye bëgg goo xam ne bu la waxee bul julli doo julli ëppaloo bu la waxee bul woor doo woor bu la waxee bul jaamooti yàlla dootoo jaamu yàlla loolu lan la ëppal la su boobaa lu muy jur muy bokkaale te loolu mooy liñ dal nii bëgg nit ñoo xam ne luñ la wax nga def ko nga def ko léeg-léeg sax ñu ne la fasal sa jabar nga fase ko léeg ñu ne la bàyyil say mbokk nga bàyyi leen léeg-léeg ñu loolu sax yi fu àdduna la waaye mbiru diine waaw ñun fii nu nekk ku fi nekk amoo looy uti màkk déggal loolu looy uti màkk fii ku fi ñëw daanaka dem nga màkk dégg nga ñun mbooloo mi nu bokk ku fi bokk jaratul ngay julli ndax julli deuxième la du dara ci ñun wala yooyu doomu aadama yi ñëw di wuyu si di bàyyi farata yàlla yi duñu julli duñu woor duñu aji duñu génne azaka duñu duñu duñu duñu moo tax foog mu leer ci ñun ne bokkaale gi nga xam ne moo njëkk a am ci kaw suuf si sababuhu mahabbatu salihin ay al mahabbatu allati fiha guluw borom bi subhanahu wa taala nee nag kaana annaasu ummatan wahida nit ñëpp dañ doon jaamu yàlla ci jamono aadam amul kenn kuy bokkaale ummatan wahid benn nation lañu woon bi aadama demee nuux ñëw nuux faatu jàngeen aaya bi ñu tabax nit ñu baax yi nga xam ne ñoo doon dund ci jamono nuux ñu tabax leen ay institut daal leen samp ci place yi ñu doon toog bokkaale daal di commencé loolu moo indi bokkaale waaye nit ñi xamuñu woon bokkaale daanañu mën nañu mooy yàlla nag mën nañoon xeex doon reyante doon nañ njaaloo mais xamuñu woon bokkaale amuñu woon sax fitam loolu nga dégg yàlla di wax ci quran kaana naas ummatan waahid kon leer na ci ñun ne bokkaale gi li ko ëpp li ko waral mooy lan bëgg nit ñu baax ñu ëppal ci ñoom mbokk yi loo bëgg ëppal ko ëppal ci rek loolu baaxul xataa yonent bi alayhi salaam bi muy wax sa soppe sa xarit la nga ko bëgg dafa ne ahbib habibaka xaw nan ma sa xarit bi nga bëgg bëgg ko ndànk ndax ëllëg mën na nekk sa noon problème am mën na la xamal lépp jaay la kon bëgg ko ndànk sooy bañ nit mu ne ko bañ ko ndànk koo mën a bëgg dafa am fu mu wareem jàngeen alxuraan yàlla mu ne wa min annaas man yattaxiz min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla moo ko wax dañoo jël leneen lu dul yàlla bëggu ko lu raw ni nu bëggee yàlla loolu xam ngeen ne tey am na ci jamono kon mbëggeel dafa am fu mu yem sa soxna sax boo ko bëggee yenn bëgg yi mu mu fitnaal la sa doom sax boo ko bëggee yenn bëggeel yi mu jooy loolu ëllëg kon dafa am nu mu war a yem bu dee nit ñu baax ñi tamit dafa am fu ñu war a yem waaye saa yoo ëppalee ci mbëggeel goo leen bëgg bokkaale dugg na loolu mooy ñaareel ñetteel mbokk jullit yi maarifatu awalu cheyin xuyira diini diinul ambiya xuyira bihi diinul ambiya mu ne bokk na ci ñu xam li ñuy jëlee ci dars yi passé mooy ñu ñëpp ñu ànd xam ne li njëkk li ñu soppee diina yonent yi mooy bokkaale yonent yi do lu ñu indi woon tawxiid tawxiid boobu lan moo ko soppi mooy bokkaale aadama lu mu indi woon tawxiid idris Moussa Isa Nuux ñoom ñëpp lu ñu indi mooy tawxiid lan moo ko soppi mooy bokkaale wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wattanibu taaxut yàlla nee na xeet wu nekk yónni naa fay nit yonent lan moo ko waral mooy nañu bàyyi xërëm yi nañ jaamu yàlla kon diine jooju yonent yi indi woon nga xam ne moom mooy tawxiid kennal yàlla lu ko soppi mooy bokkaale bokkaale rek moo ko soppi loolu tamit dañ koy jëlee ci dars yi passé ñeenteel maarifatu sababu qubulil bidaa war nañ xam sabab lan moo tax nit ñi di nangu bidaa maa kawnu sharai wal fitra tunkiruha sharia day bañ bidaa fitra day bañ bidaa mais terewul gis ngeen nit ñi nangu nañ bidaa lan mooy bidaa bidaa mooy lan mooy lu ñuy tuddee diine di ko ci yokk te bokk ci loolu mooy bidaa tey nag nit ñi dañoo lànk lu dul lépp foog mu nekk bidaa ndeysaan amoon nañ benn njiit da daan wax ne aadaay réew mi de tey nang dàq na sunna aadaay réew mi dàq na sunna aadaay réew mi bu dàqee sunna kon réew mi yéeféer lañ maanaam nit ñi seen bëgg-bëgg bu dàqee li yonent yàlla Muhammad indi kon nit ñi est-ce que ay jullit lañ aada warta dàq sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkaale warta dàq tawxiid tey bidaa daanaka benn boroom xam-xam bu mag bu daan wax ne bidaa yi xobu ngeer yee tolloo tey ku càmbar di nga gis ne bidaa bi mu ëpp xobu ngeer bi di nga gis ne xeet wu nekk dañoo am bidaa xeet wu nekk dañoo am bidaa tukulóor yeeg séeréer yi seeni bidaa nuroowul de wala joolaa yeeg olof yi seeni bidaa nuroowul man a xeet wu nekk da ngaa yor say bidaa njaganaayoo ko te bidaa ku dund diine da ko war a bàyyi parce que bidaa baaxul bidaa day yàq diine kon war nañoo xam nit ñi lan moo tax ñu nangu bidaa te sharia ak fitra di dàq bidaa sharia mooy li yonent yàlla muhammad indi fitra mooy ni yàlla bindee nit ñi ñoom ñaar tunkiruha dañoo dàq bidaa wa anna sababu zalika kullihi masjul xaq bil baatil li waral loolu li tax nit ñi nangu bidaa mooy nit ñi dañoo jël dëgg ak caaxaan jaxase ko bi dëgg ak caaxaan jaxasoowee ñu dem ba caaxaan daa di mëdd dëgg kenn xàmmatul dëgg bidaa daa di juddu daa di am doole léegi bu ñu ñëwee ci xew-xew bi lu ñuy wax au lieu ñu ne lu yàlla ak yonent bi digle rek dañ naan waaw yéen nu ngeen ko doon defee yéen seen aada lan la yéen seeni maam lu ñu doon def ah ñu daan ne mbokk yi de nii lañu nii lañu wax nañ ko defee ñu ne bismillah mbokk yi lu ñu rafetlu rek baax na ba ci takk sax da ngay gis bu ñu demee ci takk ñu ne imaam yéen seen jàkka ji nu ngeen di takkee imaam bi commencé waaw fii douze mille la ñuy takk cinq mille u imaam cinq mille u bilaal cinq mille u jàkka ji gis nga foo dem rek bidaa yaa ngi fees dal loolu loolu loolu ci ban téere la nekk cinq mille imam cinq mille bilaal cinq mille jàkk ban téere lañ ko bind boobu la yooyu laa ñemee waxam ma ne li tax bidaa bi sax mooy nit ñi lu tax bidaa bi dugg ci diine bi mooy lan dañoo jaxase dëgg ak fen jaxase ko ba fen gi daal di mëdd dëgg bi kenn xàmmeetul dëgg moo tax bidaa daal di sax te yàlla waxoon na ci quraan ne wala talbisul xaq bil baatil wa taknumuuna al xaq wa antum taalamuun bu leen jaxase dëgg ak fen ngeen nëbb dëgg te yéen xam ngeen ne da ngeen a nëbb dëgg loolu la nit ñi def jël dëgg jaxase kook caaxaan te jamono waa jii def loolu xam na ne xam na ne dafa nëbb dëgg dëgg yàlla gi la nëbb kon maarifatu sababu qubulil bidaa maa kawni sharaa'i wal fitra tunkiruha wa anna sababu zalika kullihi masjul xaq bil baatil sabab boobu yëpp nag mooy jaxase dëgg ak fen bi am rey ni ci ñaari mbir la ñu jaxase dëgg ak fen al awal mahabatu saalihin ki bëgg nit ku baax ki da ngay wax mu ne la yéen da ngeen a soxor sunu mag ñi ku leen bañ yow da jëm nga safara ah yéen ñu bon ngeen nañ ngeen di bañee ah gis nga xam nga loolu mu wax dëgg la waaye nag bu ñu yemoon foofu baax na mais duñ fa yem kenn waxul kenn terewul kenn nga bëgg ku la neex mais dafa am fu mu yem saa yoo bëggee nit nag ba dendale ko ak yàlla nag yàq nga nit ko saa yoo bëggee nit ba ëppale ko tollale ko Muhammad yàq nga ko koo bëgg rek am na fu mu yem kon ci li ñuy jaxase dëgg ak fen mooy jéem a layee ay mbir mahabatu salihin والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا am na ñenn ñoo xamante ne nan la ñu jaxasee dëgg ak fen dañuy ñëw fent jaamu yàlla bu bees taaralal ko nit ñi waaw nitu diine yi ahlul ilmi boroom xam-xam yi am diine ñoom ñooy ñëw ci sunna yonent sos ci lu bees comme tey nu mu amee Sénégal ay mbir yu bëri yu ñu sos fekk dara amu ci cëslaay ak wéeruwaay ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag fa zanna man baadahum annahum araadu bihi gayruhu ñii ñëw ci ginnaaw lu ñuy foog dañ naan de dëgg-dëgg ñii liñ fi defoon lu baax la naa ko def su ko defee ñu topp ci loolu bàyyi li yonent bi indi woon te saa yoo dundalee bidaa rek rey nga sunna ku dundal bidaa rey nga sunna xoolal dugg ci jàkk lan la yonent bi jàngale ci dugg ci jàkk nuyul jàkk ji ñaari rakk ñu ne la boo duggee ci jàkk timis di waale jot bul bul nuyu jàkk ji toogal rek nga toog looy wax astaghfir subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allahu akbar boo pare nga ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi toogoon ne la waaleykum salaam wa rahmatullah gis nga rey nañ sunna dundal bidaa da ngay génn fajar sa buntu kër looy def sotti ndox lan la la yonent bi jàngaloon bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah gis nga loolu réer na dundal nañ bidaa rey sunna dafa bëri nag bu nekk mën ngaa wax sunna buñ farey dundal fa bidaa xoolal ki sosoon bu ngeen xëyee suba sotti leen ndox seen bunkër ki ko sosoon ci Sénégal xool leen lu mu yàq kenn xamul lu mu yàq ci diini xoolal kër yuy xëy di sotti ndox ci oto kër yuy xëy di sotti ndox ci buntu kër kër yuy xëy di sotti ndox ci taabal ñaata la bàyyi nañ ñaan bi kenn du ñaan lu yonent bi waxoon est-ce que loolu rek la est-ce que foofu loolu rek la ku nekk xam nga. ku nekk fi ma toog nii mën ngaa indi yu ñu rey ci sunna dundal fa leneen lu ko waral mooy jàpp ne ki ko wax du fen jàpp ne ki ko wax wax na dëgg jàpp ki ko wax du juum jàpp ki ko wax jàpp ki ko wax loolu moo tax nit dina jàpp ne lii lu baax la démb damay déglu benn damay seetaan benn télé waa ji du wax benn xew-xewu diine boo xam ne benn kilifa diine moo ko fi indi mu ne moom ni mu ko daan defee day fanaane jàng alxuraan ba bët set moom noonu la ko doon defee loolu tey ku xool tey loolu nu ñu koy defee ci réew mi amatul jàng alxuraan loolu waa ji wax ne noonu la ko kilifa diine googu doon defee buñ jullee gee ba pare mu tas kaamil ci jàkka ji ku toog mu jox la jukki ñu fanaane wàcce kaamil bi bu bët set est-ce que loolu rafetul waaye gis nga nuñ ko changé ginnaawam loolu moo tax sos ci diine dangereux parce que ñi nga bàyyi ginnaaw du ñu bàyyi rek li nga indi foog ñu yaatal ko yokk ci leneen lu ci bokk loolu moo xew loolu moo xew tey ci diine ji lu nekk ñu yokk ci lu ci amul woon ci wàll yépp nag ci anam yépp nag loo jël rek mun naa laa wax luñ ci yokk loo jël fii ngeen toog lu ngeen laaj mun naa leen wax luñ ci yokk loo jël ci dund gi rek ci jaamu yàlla am na luñ ci yokk lu ci bokkul loo xam ne yonent waxu ko yonent xamu ko tey jii ku demoon yonent bi alayhi salaatu salaam dekki nga ne ko waa mbiru sàngam de nangam ak nangaloon danaan waaw loo wax ah man de loolu defewuma ko woon noonu loolu musiba la julli di dem ba wuuteeg seen yonent te yàlla waxoon na ci alquran falyaxzari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim mooy te ndiku leen wuuteeg yonent bi bu ngeen wuuteeg moom dinaa leen mbugal àdduna alaxira mu yóbbu leen safara loolu aaya la wala du aaya falyaxzari alladina yuxaalifuuna an amrihi la yàlla wax an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim jàngeen aaya yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul ee yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi kon nooy def nekk seen ginnaaw tey nag dañ leen a jiitu ku nekk ci ñun looy def kenn du ne naka la ko yàlla doon defee ak yonent bi déedéet da ngay ñëw rek soobu ba ci julli gi ñuy julli waaw da ngay gis façon julli gi ni mu bëree façon julli yi ñii fi ñuy teg seen loxo yi ñii ci suufu jumbax ñii ci dënn yi ñii wàcce ah lu nekk kenn xamul façon koor gi gis nga kenn du woorandoo aj màkk bi gis ngeen ko ma ne lu nekk rek gis ngeen bidaa yuñ ci dugal lu nekk rek gis ngeen ko luñ ci yokk lu nekk ñii duñu sangu àllarba àllarbay kare ñii duñ tukki àllarba ñii duñu ñaani xal timis ñii duñ jaay puso duñ jaay puso guddi ñii duñu maye xorom timis ñii la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ak bëri lu ñuy bañ Sénégal ak bëri lu ñu dugal ci diine ji ci bokk ci ah ak bëri laa wax soo koy lim da ngay dee ak bëri te dara wéru ci dara wéru ci barki démb laay doog a comprendre ne néew ku faatu ñu lay suuli bu ñu la sangee ba pare génne la sëru rabal lañu war a teg sa kaw barki démb laa ko comprendre man mosuma woon xam ne man yaakaaraan ne sër bi dañ ko ciy teg rek ngir nit ñi bañ a gis waa ji mais ndeke am na sabab ah benn rajo benn télé benn rajo moo doon def reportage ci ci ñiy liggéey sëru rabal journaliste bu jigéen déglu nga ko mu mu dem ci ràbbkat yi mu leen di laaj ndax seen métier mi léegi mu ngi dox gars yi ne métier mi daanu na métier mi léegi kenn jëndatul sëru rabal yi ñun léegi nangam dañuy ràbb fi gisoo léegi sax amatul ci mbedd yi mais bu njëkk ba foo romboon da ngay gis gars yi tàllal wëñ ñi di ràbb léegi nag bi waa ji laajee journa journaliste bi laajee ñooñu di liggéey ñooñu wax loolu mu ñëw ci maire yi mu ne maire yi waaw léegi yéen di ngeen a bàyyi xanaa sëru rabal maire bi ne ah nit ñi bàyyi nañ aada yi ndax sëru rabal dafa daan jëriñ kuy tukki ñu muur la ko kuy sëy ñu muur la ko ku dee ñu muur la ko ma ne ah ndeke dafa am sabab ndeke affaire bi dafa am sabab ku dee ñu muur la ko ku ku voilà muy lim bu ñuy nàmpal dañuy bu ñuy boot sëru rabal bu ñuy tudd xale bi sëru rabal kuy sëy ñu muur la sëru rabal mu ne loolu moo doon aada ju fi sax léegi nag nit ñi xale yu jigéen yi dootu leen toog léegi dootu leen toog ba seen yaay yi maye leen yéenay dem indi fële xale bu góor loolu moo tax affaire bi sëru rabal dee ma ne la il gis nga ndekkee fii Sénégal lu ñu def rek am na fu mu jógee yow yaa ko xamul moo tax diine bi ñu rey ko musiba bu nekk dañ koy jël indi ko ci diine bi fan lañ jànge lool fan la ñuy jànge ci diine fan lañ ko jàngee ni sëru rabal dafa am place ci diine fan fan ban ban aaya la ak a neexoon ñu ne sëru rabal dañ ko war a woddoo waaye gis nga kenn limul lim na ba pare waxul wodd pourtant waroon nañ koo woddoo de ndax awra yi bañ a génn ci biti ah loolu lañ ko doon doyee sax woddoo mais tey jii ku ko fi woddoo xale bu jigéen bu ko fi woddoo fii dañuy wooy télé mu filmer leen kaa leen xool kii kii moom xam naa ne mu ngi jógee ci kaw asamaan si kii comprendre quoi kii comprendre quoi kii fu mu jógee extraterrestre lañ lay def gis ngeen sunu diine kon ndeke sabab bi tax diina ji dee mooy ñenn ci ay nitu diine yokk bu ñu bu ñu bëgg bu ñu leen bëgg ak ñenn ci yo- ci nitu diine yokk gu ñu yokk ci diine bi lu ci bokkul woon tey ji bu ngeen xoolee Sénégal daanaka lu bokkul ci diine ji rek la ñuy dundal wala ku nekk laa wax ci Sénégal xam nga li may wax ni dëgg la suñ ko ñemee ak buñ ko bañee bu ñu nangoo dëgg gi ñu ne dëggu yàlla gi la mën nañ fee lim fii nu toog téeméeri mbir yu ñuy dundal ci réew mi te bokkul ci diine ji fi mu nekk nii bu ma tàmbali woon fii ku nekk indi benn wallahi dinañ daj ba mu des ci ay mbir yu ñuy dundal te bokkul ci diine soo deewee dugg bàmmeel yàlla du la ko laaj te loolu rek la ñuy def fii nag ku ko deful bokkoo yow dem nga non demuma yow ndax demoo yow de alku nga laa ilaha yow xew yow demoo gis nga loolu rek boo nee demuma sax ñu ne kii noonu la yow yow baaxoo gis nga allahu akbar fekk ñi ëpp ñuy rey seen bopp ci mbir yu demee noonu duñ julli duñ dem jàkk doo leen gis mukk ñuy va et vient jàkk yi jamais doo leen gis mukk ñuy jàng alquran jamais doo leen gis mukk ñuy màggal yàlla subhanahu wa taala kon nañ leen delloo suñu xel ab jullit doo du question farfarloo déedéet xam nga jullit lu ko war a intéressé mooy dëgg ndax dëgg moo njëkk mooy mujj te boo duggee bàmmeel wallahi kenn du la laaj leneen lu dul yonent yàlla muhammad kenn du la laaj lu dul diine lislaam kenn du la laaj lu dul alquran kenn du la laaj ku dul yàlla kon li nga xam ne moom lañ lay laaj moom nga war a xam élèves yi buy jàng moom lan moo war a lu ko war a intéressé mooy mu jàng leçon yi programme bi mu jàng ko mais ñu ne la jàngal yow nga toog ci journée yi rek di lire léegi nag bu examen bi jotee yow da nga am problème parce que kenn du laaj lu nekkoon ci journée yi lu nekkoon ci programme bi la ñuy laaj ak loo lire journée yi nag ak information yi loo mu dugg dugg sa bopp ak loo comprendre journaux yi ak loo comprendre politique bi ak loo comprendre réew mi alku nga parce que jàngoo li waroon kon nag bu ñu xumb xumb yóbbaale mbokk jullit yi bu ñu xumb xumb yóbbaale juróomeel maarifatu jibillati l insan fi kawni l xaq ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب nee na juróomeel war nañu jële ci sunu dars passé war nañu xam ne doomu aadama xeetu doomu aadama moom dëgg-dëgg ñu bari ci doomu aadama yi ngëm yàlla day wàññeeku ci seen xol dëgg day wàññeeku ci seen xol caaxaan di ci yokk am na ci nit ñi ñoo xam ne minute par minute minute par minute la caaxaan di yokk ci ñoom dëgg di wàññeeku ci ñoom minute par minute seconde par seconde la caaxaan di yokk ci seen xol dëgg di ci wàññeeku loolu dafa bëri ci doomu aadama yi xoolal tey réew mi nuñ buggee fo soo wootee fo day fees dal kenn du tardé waaye dëgg xoolal seen mbooloo mi chaque jour dëgg du bëri nit waaye nag loolu mooy mooy nature moo tax da ngay dégg aksar yu bëri ci alquran amul njëriñ wa maa yumin aksaruhum billah illa wa hum mushrikun aksaruhum laa yuminuun aksaruhum laa yaqiluun gis nga kon bu ñu toog fii mu di xaar ne nit ñi dana nu fekk fii bis ba fii fees ndax ñu ëpp ci ñun ci nit ñi dëgg moo leen intéressé wul loolu moo tax day wàññeeku ci seen xol tey boo jógoon dem ci dëgg sax da ngay dégg ñu ne yow foo jëm da damay dem suñu jàkk ji ñu ne suur mais yow yow sonn nga de yow daal bëgg nga bés bu nekk rek da ngay jóge fi dugg oto mais sonn nga ah mi mi mi mi mi mais mi mi gis nga ndeysaan ka de la wax quoi ñàkkul ci yéen ñu ñu koy wax di ah dinañ la koy wax gis nga ah chaque jour chaque jour ñu wax la ko de il faut jëm ah wax nañ la ko de gis nga ah te pourtant boo doon dem ci stade bi di caaxaani kenn du wax dara waaye da ngay ku ne yóbbaale ma yow waaye yow ku bon nga yow doon dañu yóbbaale non yow daal boo doon dem di uti xaalis bo fi mu nekk nii bu fekkoon ne chaque jour boo fi ñëwee jox la 15000 wala 10000 wala 25000 ñi la ñi nga xam ñëpp te waxoo leen ko bu la gisee nu ñu lay def. nee na yow yow yow yow yow yaa yow yow doo suñu waay yow ndekkee yow ngoon gu nekk rek nga ñëw gàddu sa 25000 ñëw toog te nga xam ne foofu ku fa dem ñu jox ko vingt cinq mille francs te te yow bu- bu- mosoo ñoo wax ñëwal loolu lan lay wax wala pourtant lii ngay di jële fii moo ëpp vingt cinq mille de ah ndeysaan allahu akbar waaye xoolal au lieu ñu ne la waaw góorgóor loo fa jëlee sax xanaa boo ñëwee nga wax ma man dama amul jot mënuma déedéet dañ la ci xas di la décourager di la wàññi ba yenn saa yi sax boo amul fit ñemewoo dëgg doo continuer da ngay jékki-jékki daal di arrêté waaw loolu moo leen di wan ne sunu borom subhanahu wa taala li mu wax mooy dëgg mooy lan doomu aadama yi ñi ëpp ci ñoom dëgg day wàññeeku ci seen xol caaxaan di yokk li ëpp ci nit ñi caaxaan rek lañ gëm foo leen woo ñu wuyu te lu mu amul lu mu leen jaralul nag amul lu mu leen jaralul waaye boo nee leen ñoo leen ci dëgg yàlla gi ndeysaan nga gis ñu commencé di ñuulal kanam ñenn ñi sax bu la rombee dootuñu la nuyu waaw ñu la nuyu yow dañoo yaakaaroon ne ah li li sa baay nekk doo ko bàyyi mais léegi nga jékki-jékki di dugg ci diine yu bees yi di topp xale yi xale yi nga xam ne ay naar lañ topp ndeysaan loolu la lay wax ndeysaan mus naa nekk ci benn institut islamique ñuy def benn formation benn waaye jékki-jékki rek ñu génn taxaw nii di waxtaan di làkk di di wax arab mu ne ma antum taabuduna al arab mu ne ma yéen arab yi ngeen di jaamu man ne ko mais lu tax nga wax loolu mu ne bu ngeen gisee naar yi rek di bëgg a dee ma ne ko ah kon de ñun ñëpp arab yi la ñuy jaamu même suñuy maam sax arab yi lañ doon jaamu ma ne ko Cheikh Ahmad Tidiane lan la Serif lan la du naar Abdul Qadir Jeylaani lan la imaamu Malik lan la te ñooy ñooy sëriñ waa Sénégal ma ne ko kon ñu waa Sénégal ñu ñëpp naar la ñu jaam même yow génnoo ci de te yii ma wax yow benn nga ci ma ne mais ñun jaamuñ kenn ñun yàlla la ñuy jaamu yàlla rek moo nu ñor alxuraan bi arab yi moomuñu ko yàlla moo ne ko yonent bi wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnas yàlla bu ko ne woon kaafatan rek ñun dugg nañ waaye mu ne encore linnas te ñun ay naas lañ wala du ngeen ay naas ah waaw kon kay yonent bi sunu yonent alxuraan bi amul frontière sunna yonent bi amul frontière kon yàlla la ñuy jaamu jaamuwunu kenn yonent bi la ñuy roy royunu keneen loolu dafa war a leer yàlla ak yonent bi doy na keneen loo am su baaxee mën nañ koo jël yóbbal yóbbaale su sikki sàkk amee ñu baala ak moom bu nu yëree fekk bokk ci diine ji ñu bàyyi la ak moom bu nu yëree nag fekk amal na lu njëriñ amal na diine bi njëriñ ñu jël xusil xikma walaw min alsinatil kuffar yonent bi nee na xam-xam jël leen donte ne yéeféer a ko wax est ce que dañ naan oto yi yéeféer a ko defar duñ ci wax ah montre yi yéeféer yee leen defar duñ leen tàkk non amal na lu njëriñ suñu wàllu àdduna bokkul ak suñu diine dara dañ koy jël ci wàllu diine ji tamit noonu la bu nu gisee lenn loo xamante ne wuutewul ak diine dañ koy jël parce que yàlla moo nu ko tàggal huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ard jamian ixwaan yi juróom-benneelu tomb ci lu ñuy jëriñoo ci darsi mooy ann fiha shahid mooy ay ñu doon jàng dafa am lu ne weng lu ñu war a teg sunuy baaraam ak sunuy bët lima nuqila an baadu salaf ndax jëlee nañ lenn ci borom xam-xam yu baax yi ñu ne ann al bidaa sababul kufr xam ngeen lu tax weddi yàlla am mooy bidaa bidaa day yóbbu nit ci yéefir bidaa baaxul bidaa moom moo gën a bon bokkaale moo gën a bon mooy yàlla ndax mooy yàlla mën nga kaa tuub mais bidaa mënoo koo tuub ndax da ngay jàpp ne ci diine ji la bokk ah bidaa kuy def bidaa du tuub mukk du tax du tuub day jàpp ne ci digg bi la nekk man li may def noonu la da ngay dékki ne man li may def ah bu yeboo naa dem safara bu fekkee ku war a def da ngay dem safara naa dem mais lii moom du ma ko bàyyi doo ko dégg ci laay dee waaw yàlla ma yàlla musal ma koy bàyyi baaxul mais ki mooy yàlla koo ne sàngara baaxul dana la wax nga dëgg de baaxul de wax nga dëgg day xam ne li mu nekk baaxul koo ne musique baaxul day xam ne baaxul koo wax ci lu bon baaxul da koy xam mais boo fekkee kuy def bidaa nga ni ko lii baaxul danaan la waa naa ci dee bàyyi ma ma dee ci baaxul waaye man ci laa bëgg a dee léegi ci laa bëgg a dee gis nga te boo ci dee alko kon nanu xam ne annal bidaa sababul kufr bidaa mooy sabab nit ñi weddi yàlla wa annaha ahabu ili iblis ahabu ila iblis min al maasiya iblis suñ ko tegalee ñaari nit ñu tegal ko ñaari mbir bidaa nekk nii mooy yàlla nekk nii xam ngeen iblis lu muy préféré nit ki def mooy nit ki na def bidaa ndax bu defee mooy yàlla day tuub mais bu defee bidaa du tuub fi mu nekk ni ma laaj leen rek kan ngeen di gis ci yii di xew Sénégal mu ciy dem koo xam ne bis dina ñëw mu ne maa ngi tuub li ma doon dem mu ngeen ko gis dundu dem dee dem wal ngay dégg te kenn du ne tuub naa da ngay dégg ku ne la dundu dem dee dem bu may dund danaa dem bu ma dee danaa dem ndeysaan voilà rek fu mu ko teg fuñ fu mu leen yegg ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam iblis laa wax li mu gën a bëgg nit di def mooy bidaa ndax kuy def bidaa du tuub ci lay dee ñaata nit ngeen xam ñoo xam ne ci yi lañ dee ñaata nit ngeen xam ci yi ñu dee ci yi am na ñoo xam ne dëgg dafa leeroon ci ñoom naññ ñu lànk ne ñoom duñ ko jël bidaa rek nit ñi dañoo lànk lu dul ne ci bidaa la ñuy dee ndeysaan lenn ci nit ñi dañoo lànk lu dul ci bidaa la ñuy dee te ñoo la gën a xam ne lii ñuy def yàlla waxu ko yonentu waxu ko mais ay nit ñoo leen ko taaralal ba mu jaral leen a dee jaral leen dee kon mbokk yi bidaa baaxul luñ ko mën a sori lépp lu ñu mën a def ba ñuy xàmme bidaa ci jaamu yàlla yi nañ ko def ndax bidaa ku koy def yàlla du ko nangu man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna huwa rad képp kuy def bidaa yàlla du ko nangu kon na leer ci ñun mu ne iblis li mu gën a bëgg mooy def bidaa li anna al maasiya qad yutaabu min qad yutaabu minha képp kuy mooy yàlla bés dana ñëw mën ngaa tuub waaye wal bidaatu laa yutaabu minha bidaa kenn du mënu koo tuubal ki koy def du tuub day sànn wala julli fay faat ñaata yoon ngeen di gis ñuy julli julli fay faat wala du musu leen koo gis vendredi bu mujj ci weeru koor bu ne di nga gis ñu tant Sénégal ay mbaar di woote ñëw leen julli ñëw leen julli imaam bi ñëw na de ñaari ràkka yooyu ñu ne soo ko jullee mooy li nga julliwul woon ci adduna bi yëpp fay nga ko fay faat léegi nag fay faat boobu ban hadis la kan moo ko wax fan lañ ko jëlee ah fay faat julli boobu fu ñu ko jëlee ci ban ci ban téere la nekk wala naafila guddi koor yi naafila guddi koor yi yenn saa yi gis yenn jàkka yi bu ñu bu ñu tafsiree ba pare benn imaam bi day génne benn téere mu ne tey ku julli ñeenti ràkk ràkka bu nekk nga jàng ci fatiha juróom-ñeenti yaasin ñeenti inna arsalna fukki alam tara kayfa juróom-ñaar fukki qul wa allahu da ngay dugg aljanna sa jabar dugg aljanna sa doom dugg aljanna sa sët dugg aljanna sëtam dugg aljanna sa taatam dugg aljanna waaw loolu loolu ku ko wax te bidaa yooyu am na ñu koy def ci réew mi du jeex de ah julli nga ko ba sonn waaw du jeex dara wéru ci mu wéree même ci njàpp yi da ngay gis nit avant muy jàpp wala muy jàpp su raxasee loxo am benn ñaan bu mu ñaan su raxasee gémmiñ ñaan bu mu ñaan bu raxasee bakkan ñaan bu mu ñaan bu raxasee waj konam ñaan bu mu ñaan bu raxasee loxo ndeyjoor allahumma atini kitaabi min yamini bu raxasee càmmoñ allahuma la tuutini kitaabi min simali wala min wara zahri bu masaaree boobu allahuma zillini taxta zilli arsika yowma la zilla illa zill bu jàppee pare allahuma ijal zambi maxfu saayi maskuran wa zambi maxfuran ah yooyu yëpp dërë wiru ci dërë wiru ci te nit ñaa ngi koy def dërë wiru ci mbokk jullit ci même da ngay gis sax bu ñuy li xaam buñ ne bismillah nga rek waaye ne astaghfirullah min kulli zanbin inna allaha kaana ghafuran rahima allahu akbar allahu akbar commencé di jéemaa dul fekk dara wéru ci lu muy def noonu dara baaxu ci wérul fan la commencé allahu akbar allahu akbar shadan amul astaghfirullah min kulli zanbin inna allaha kaana ghafuran amul même julli ki ne ili xaam ba pare nga rek bismillah imam bi ne bismillah biniyati solaatil ishaai arbau rakaatin ah yooyu yëpp da ngay dégg yu koy wax ak yu kenn xamul yu kenn buñ paree julli gis ngeen ñaan yi dañuy signé ci sijaada yi ñiy wëral ñii la hawla wala quwata illa billah foo dem rek gis bidaay du jeex loolu baax léegi nag ki koy def ndeysaan du tuub ci lay nekk parce que benn waaye moo ko jox mu gëm waa ji wala waa ji gëmloo ko ne lii ku koy def boo dee nangam ak nangam wala boo koy def sa dund gi dara du la lii wala nangam waa ji di ko def fekk dara wéru képp ku la jox dara nga jël bàyyi loo la lu Muhammad indi parce que Muhammad jàngale na fépp lu ñu war a def la fépp loo war a def yonent bi nee na lii ngay def léegi nag bu la keneen joxee dara nga indi bàyyi nga li yonent bi waxoon léegi waa ji ak yonent bi koo dëggal ah moo tax ñu ne bu kenn joxe kenn warul joxe ay wird kenn warul joxe ay ñaan parce que nit ñi yonent bi li mu leen indil mënuñu koo def ba mu jeex soo leen indilee ay ñaan wala ay wird wala ay julli da nga leen tere ñu def li yonent bi doon def te leen mënuñu ko jeexal musiba la loolu moo tax bidaa bon parce que ki koy def du tuub mooy yàlla moom ki koy def dina tuub parce que xam na dafay mooy yàlla day tuub mais bidaa ki koy def du tuub moo tax musiba yàlla nañu yàlla musal ci bidaa ixwaani fillah juróom-ñaareel mooy maarifatu shaytaan bima tuawilu ilayhi lbidaa ndeysaan gis ngeen seytaane seytaane dafa xam fu muy jaar doomu aadama yi moo tax chaque jour mu leen di taaral ay bidaa seytaane Iblis dafa dugg ci jàkk ci mu fekk borom xam-xam bi dina la mu fekk benn waaye dinaa fi la mu jël uppukaay muy upp borom xam-xam bi normalement xel li mu nangu mooy ñoom ñaar kan la waroon yàqal kii julla kuy nelaw ñu ne ko waa Iblis yow affaire bi doy na waar de yow kii di julli kii di nelaw mu ne ah kii xamul dara. kii di nelaw bu yeewu di ko defar moo tax bàyyi ko rek mu kër kër kee moom xamul day këpp këpp rek julli waaw te kii di nelaw bu yeewoo day defar day defar li kii di yàq kii xamul dara kii day këpp këppal tus xamul ko te kii di nelaw bu yeewoo fi rek waa yow kii yàlla bu mu yeewoo mu koy upp gis nga iblis moo tax iblis chaque jour day de nit ñi dañu yaakaar ne iblis du indi dara iblis day dem di dañu laaj benn borom xam ayanaa mu iblis ndax iblis day nelaw mu ne law naama lastarax naa su nelawoon ñu noppalu ndax iblis day nelaw mu ne bu nelawoon ñu noppalu du bàyyi nit ñi ñu nopp mool ma jox leen benn misaare xool leen ñaata façon mode ngeen di gis ñaata façon ngeen di gis nit ñi di créer ñaata façon jeu moo nekk ci àdduna bi sport ñaata façon la ñaata façon ngeen ci xam modd yi nag année bu nekk semaine bu nekk nga dégg modd bu bees semaine bu nekk nga dégg xew-xew bu bees boo xamul woon ñaata groupe nga xam ci ay caaxaankat semaine bu nekk nga gis groupe yi yokk mooy Iblis day créer rek da ngay tëdd rek Iblis ñëw ñu ngi wane ci benn CD bu musique benn waykat bu mag a mag benn soirée bu mu waroon def mu am ngant mu feebar munu ko def iblis ñëw dugg ko mu ñëw def ko seytaane ñëw dugg ko mu wér ci saase dem def ko gis nga am na fooy toll seytaane dëgg ngay àndal même way yi wala wax yi moom moo la koy indil da ngay tëdd léegi mu indil la ko nga gis waa ji yeewu jël bikk bind tërr ba mu jeex bu xëyee gis nga daal di génne way daal di génne ci ag ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ku ci gëstu dina ci gis lu ko doy loo xamante ne weng la ciy teg bëtam mbokk yi kon iblis lu ëpp moo koy taaralal doomu aadama yi walaw xasuna qasdul fa'il ba pare li gë doy waar mooy iblis bu lay jox dara nga koy def ci wàllu jaamu yàlla yi daf la koy rafetal def naan la lii xoolal ñépp a ngi nelaw ñépp a ngi tëdd mais yow yaa ngi jóg di naafila waaye sa naafila bi nag jublul sow lu jublu penk nga bëgg ne baaxul mu ne la mais xoolal ñépp a ngi nelaw yow même bu baaxul sax yaa ngi def lu baax parce que ñii yaa ngi nelaw nga jël gis nga walla mu ne la yeneen wax yoo xamante ne day tax lii ngay def nga sawar ci am na benn waay boo xamante ne dafa am lu ko réeru bi ma amee lu ko wër mu wër ko une semaine mënu koo gis ma joxe misaal jaaro baaraamam bi mën naa réer walla montram walla lu ko amal soxla torop mu koy wër une semaine mënu koo gis mu dem ci benn boroom xam-xam ne ko man daal dama bëgg nga ñaanal ma dafa am loo xam ne dama ko yitte woon trop am fu ma ko teg mu réer xamatuma ko xaw ma dañ koy jël xaw ma dafa réer boroom xam-xam bi ne ko da nga bëgg mu feeñ mu ne waaw mu ne ko boo demee bul nelaw guddi tey da ngay jàpp rek del sa sijaada nga fas yéene naafila guddi gi ba mu jeex waa ji daal di ñëw këram reer ba pare ju liggéey daal di jël sijaadam daal ne jabaram tey maa ngi ci pantre bi moo fas yéene naafila guddi gi ba mu jeex damay sujjóot di ñaan dafa am lu ma réer damaa bëgg mu feeñ waa jaani ñëw ne allahu akbar jàng fatiha rek iblis ñëw ci nopp bi ne ko non affaire bi mu ngi ci sa suufu saag bi sa saag bi ngay yor ci suuf fa la affaire bi nekk rek waa jaani assalaamu aleykum assalaamu aleykum daa dem ubbi saag bi rek gis affaire bi daa di alhamdulilah rabbil alamin daa dem fekki soxnaam lu ko iblis xañ parce que xam na ne bu naafilaa guddi day am tiyaaba léegi au lieu muy am tiyaaba naafila bi feeñ mu bañ a am tiyaaba lu muy dee tiyaaba moom affaire bi rek la bëgg mu feeñ mu xañ ko tiyaaba bi am na ci keneen koo xam ne dafa gént ñu ne ko yow di nga dund juróom-ñaar fukki at fekk am na ñeen fukki at iblis feeñu ko ne ko di nga dund juróom-ñaar fukki at fekk dund na ñeen fukki at mu ne ah ñeen fukki at juróom-ñaar fukk laa war a am am naa ñeen fukk ñaataa ci des ah fanweer mu ne naa nos ñaar fukk yi bu ñaar fukk yi jeexee ma tuub fukk yi mu xëy suba commencé fo commencé caaxaan bàyyi lu baax li mu doon def ndeke boobu ñetti fan moo des mu dee mu daa dee ci mooy yàlla moo tax ñu war a moytandiku iblis ak ay xalaatam wala ay pexeem wala ay tëralinam wala ay wooteem wala ay mbooloom iblis day xëy may benn waay mbooloo mu dul jeex ngeen ciy teg bët waa ji di wax di woote ñëpp topp ko fekk iblis la àndal nit ñi yëpp kenn du fa jëriñu ci yàlla nee na yonent nee na doo fa dem ba jële fa diine yenn mbooloo da ngay gis yenn mbooloo yu ñuy tuddee lislaam nit dem fa ba ñëwaat doo ko ne loo fa jël tey tey tey lan ngeen doon kii mu ne la lan ñun dañ doon lekk rek tey rey nañ juróomi nag waaw boisson yi ay bërigo la woon fruit bi ay pantere la woon loolu rek loolu rek yàpp ak boisson ak fruit àjjana la ëpp soo muñee fi yàlla jox la ko àjjana te yooyu ak yi du benn kon mbokk jullit yi tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci juróom-ñaar yooyu la ñuy yem ba semaine bii di ñëw ñu mokkal ñu mottali li ñuy jëlee ci dars bi ñu jàpp ne ñaar fukki tomb la incha allah jël nañ tey juróom-ñaar yàlla na yàlla def si ñu dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu